Assane bala ñoo dem ci kele bi li euh, ci kele bi bëgg ko waxtaane Coro Mandela ab journaliste la wala bokk ab animateur la bu nekk ci Walf TV mais en dehors de Walfadjri nag dafay def ay live ci internet bi biñ ko convoqué nag daal bi mu demee ci kanamu enquêteurs yi ak li ñu ruusagum ci euh, journal yi mooy nangu na groupe toppkaa boobu ñu njortoon da caa bokk ba tax ñu ko Assane Mesere. am na solo xanaa di ko masawu rek hmm. ndax Coro moom wax dëgg yàlla. ku baax la ñun dañuy dañuy déggante rek léeg nit yóbbante ma ci moom ab yóbbante ñoo ma mu déggu ko dama koy wax. Mm. sama waxeet waxee macha allah day tontu loo xamante ni ka ko yóbbante xelam dana sa dal. si mm. si si lu mel nii di ko yërëm. te xam sénégalais yeeg réew mi fi mu toll. mais ñu ngi koy ñaan daal di ko wax ne ko maam nit ñi nga xam ne dañuy topp ay kaa mm-hmm. wala nit ñi nga xam ne ñu ngi gëstu ay ay mbiri jàmbur. Mm. wala nit ñi nga xam ne ñu ngi bëgg a daane ay nit. ñooñu jëruñoo lëkkalool ndax bis bu ñu daanoo rek daa daaneel la. bis bu ñu daan day moytu borom waaw waaw ginnaaw yow yàlla dogal na am nga foo toll. Hmm. te am na komba boo xamante ni yaa ngi ci te combat bi am na lu muy laaj. mooy liggéey. Hmm. rang yi jub. Hmm. ngay jubbanti rang yi képp kuy dënga rang bu ñëwee si yow ne ko may ma tuuti man damay jubal rang yi. mais kuy dënga rang su ñëwee boo ko gestoo rek mën na laa jéem a dëng laa leen. kon ñooñu ñëpp di leen moytu day baax man mi lu bëri information yu bëri dañu ma koy jox. mais du ma toog mukk ba wax ko. moo tax gars yi léeg-léeg dañu naan ma am xam Mm-hmm. man leen xam-xam man si ah, ay yeneen man leen maa ngi nii nekk naa maire chroniqueur si seen yooyu ngeen may jox jëluma ko waaw te maa ngi doon maire chroniqueur kon nag yooyu di ko jël di ko toog di ko référé te man sama ngor mayu ma wax ma dara tey ji ñu woo ma ne ma kan moo la ko wax may wax na diwoo ma ko wax wala may daane ay nit mm-hmm. du ma ko def d'accord comme que du ko def nag dinaa moytu yu baree baree baree bari d'accord mm-hmm. nii noonu loolu daal sa sa dignité mayu la ko sama dignité mayu ma may daane ay nit <laughs> jërëjëf alaaji mm-hmm. Coro de convocation bi mu doon liir barki dem ci émission bi mu jëlee dem wuy jiwaat démb nag ba mu demee nee nañu jàggadi yaram moo tax mbir mu mujjul àgg ba tey jii la war a dem wuy jiwaat. waaw d'abord euh, ñu ngi koy masaw ci li nga xam ni dal na ci kawam. Mm-hmm. Euh, àddina moom léeg-léeg euh, fakkastalu day am. Mm-hmm. fakkastalu bu amee nag. Euh, looy jàngee la ñeneen ñu mel ni yow it daal ci jàng mm-hmm. parce que nit li ëpp solo mooy nga xam li nga romb mm-hmm. ak fi nga ne waaw ak foo jëm li nga romb ak fi nga ne foo jëm waaw loolu c'est très important parce que dafa am loo xam ni mm-hmm. euh, pare saa nit da ko war a dépasser parce que da wóor ne la sa statut Assane wax na ko sànq dépassé na fenn fi nga xam ni léegi am na loo xam ni war nga koo moytu. Mm-hmm. paren saa yi nga gis nit ne la mais yow bu ma la envoyé audio doo ma tontu audio. Mm-hmm. paren dangay yi xam ne peut-être moom xamut. koo mm-hmm. toll waaye laa daf laa bëgg wax loolu pour cañax la pour nga envoyé ko audio pour mu jël audio ba partager ko feneen naan diwa ngi nii ak kii a ngi nii ak kii a ngi nii paren saa yi looloo tax ngay éviter. Euh, yenn yi parce que dafa am yu bari yoo xam ne ak tamit paren saa nga éviter bokk ci ay groupe parce que mën nga bokk ci ay groupe am ñeneen ñoo xam dañ fa nekk di fa doxalee neneen mën nañoo xëy rek nguufaan waa groupe ba yëpp nañu groupe ba yëpp la ñuy woo mm-hmm. parce que lu tax ñu di leen woo et pourtant parents ay ñooñu ñuy ñooñu ñooñu di indi ruube bi sax mën na am ci ñeneen lañ bokk parce que jeu bu nekk dañ naan bon groupe bi comme que ni lañ fay kii bon ne leen taxañ yéen ñëpp daal ne bon pour ñu càmbar mbir yi mm-hmm. waaw donc loolu yëpp ay mbir la yoo xamante ne bi mm-hmm. léeg-léeg nit da koy loolu rawatina nag bu fekkente ni bi yow da nga nekk koo xam ni journaliste nga yaa ngi liggéey eh, yaa ngi nekk ci ay affaires yoo xamante ni bi tamit chaque jour yaa ngi def ay émission mm-hmm. defe naa ni soxlawut di nekk ci yenn kiiwu internet kii yeeg yooyu yoo xam ne kenn xamul waaw di ci def di ci wax yenn yi quoi mm-hmm. donc bu fekkente ni bi daal ni ñu ko déggee noonu la mm-hmm. euh, doy na waar trop mais il faut nit ki nit di moytu daal parce que moytu aussi tamit dafa baax moytu yenn yi mhm. te tamit euh, erreur boo gis rek mhm. ci àddina donte dina metti mais am njàng la pour nga moytu la ca sa kanam ndax que li ci kanam il faut nga éviter yenn yoo xamante ne bi dina lool mhm. parce que bu ma déggee niñ ma parce que man xaw ma toppkaay yi nu yëf yi demee mais il paraît que dañuy jël ay sujet yi ay kiiwu jàmbur euh, di ko lool waaw di ko traité di ko wili pande comme mën nañ xëy am kaaw son yi di ko traité foofu ci anam yoo xamante ni bi hmm. demeewut noonu xam nga yooyu tamit baaxut maanaam di ca bokk sax yooyu erreur la daal baaxut waaw yooyu am na yoo xam ne bi nit waroo waruñu caa dégg quoi waruñu la caa dégg quoi hmm. loo xam ne yow bu ñu la ci déggee dañ lay eh, yedd hmm. bokkut am na ñoo xamante ni peut-être mën nañu dégg mais am na ko xamante ni kii moom kenn waru ko dégg ci yu mel noonu donc ñu ngi koy masawu daal ci mbir mi mi ngi noonu kon Coro ñu ngi koy ñaanal incha allah tey ji bu demee wuy ji rek yàlla nañ ko bàyyi mu delluwaat ci ak njabootam te bu ci jógee incha allah comme noonu mu déggee ko noonu rek xam ne nit dafa mu toll foo xam ni na bàyyi ñooñu ak loola ndax bu dee da nga bokk ci ne ñu ngi leen di recherche leen wër am koo xam ne bi wuy juram faatoo mu ñëw Sénégal dañuy cëpp Sénégal ñu jàpp ko te mu bokkoon foofu kon nag ñooñu daal jàpp naa ni euh, Coro incha allah après dina ci kii daal ndax ndaanaan nga nag ci li nga nekk